واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم هما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki GMT TV bu tu jumaay Tuubaa ji ju mag ji ci waa daayira muqaddimatul xidma di ko saytu ñoo ngi leen di siyaare bu baax ak mbooleem mbokki internet yëpp di ànd ak seen jataay bi ñu euh, tuddee daarul maarif gi nekk ci jumaa ji di ñëwaat ak yéen di teg siyaar bi nag ci loxo sëriñ Abdul Xaadir mi jiite liggéey bi eh, ak mboolem kilifa yi ñu ci nekkal yëpp ñu tegal ñu tegal ko ci loxob sëriñ xaafiya mi njiital liggéey bi eh, ñi ngi woon ak yéen tey ñi ngi ànd ak yéen ci téere Jawharu Nafis waran ànd ak yéen ci seen jotaay ñetteel ci téere bi ñi ngi ci tolloon nag ci tuub ba ci wa min surutiha nadamatun ala ma faatahu min almaasi musjala wa niyatun fi ma baqiya min fi baqi min al adama awdihi li kulli ma yadur wa an yakuna taarika alxisyaani in kaana aasiyan bila tawaani wala lahu taaxiru aw tasaburu li tawbatin wala yaqulu asbiru xatta hadaani saaxibu alxufraani fa inna saa alaamatu alxislaani ma saqawati wa rayni alxalbi inni ausu minhuma bi rabbi yaakaar naa foofu la ñu waroon yem ñi ngi tolloon ci fii sëriñ bi waxee naan bokk na ci sarti tuub nit ki réccu lépp loo xam ne rawoon na ko ci ak mooy yàlla eh, rawoon na ko ci ab dundam fekkoon ko ci ak mooy yàlla mu yéene ci des ci ab dundam ne loolu mu defoon du ca deltuwaat ci lépp loo xam da koy lor eh, loolu nag décision boobu di dellu dellu ci sa boroom eh, boobu muy def mu bañ a nekk lu muy yeexe wala mu naan naa xaar ba yàlla baaxal ma rek loolu nee na ci màndarga it toroxtaange ak texee di ak euh, xol bu muuru loolu leen loolu leen la ci ay tegtalam daan nee na yàlla nañ suñ borom musal musal ci yooyu tam ñu tàmbalee nag te daane waxaakasa nekk noonu raddul masalimi delloo tooñaange jamiam mboolo seen yu addu def na ko lim min surutiha mu ngi tukkee ci ay sartam moom tuub indal mootiñi fa saji topp ja lenn hoo na ko moom delloo tooñaange fardun faratala fa man tara ko ku dana ku bàyyi na ko muxaffifan aji woyefal ko fa xad xasa mooy na malikahu boromam mu ne ba tey bokk na ci sarti tuub nga delloo ay tooñaange nee na loolu borom xam-xam yi dañ koy lim mu bokk ci e, sarti tuub koo xam ne nag jàpp na delloo tooñaange ba bokkul ci sarti tuub woyefale ko noonu rek kooku la mu def ak mooy la ci boromam mooy na boromam léegi nag mu ñëw nag ci war a leeral lan mooy delloo tooñaange mu ne sumal masaali mu topp tooñaa ngi atat dikkee na xismay ni di ñaari xaaj am waalan ci alal aradan ak ak dar ñu tudd ramu dar bi xëyri may ni ci lul mu ne delloo ngi nag ñaari xaaj la tooñ nit ki ci wala tooñ nit ci daram benn bu ci nekk it mu leeral nan lañ koy saytoo faleex du ne dello alam waale alal ja li arbaa bi ñeel ñeel seeni boroom inu ju doonem fekkeef na dahara jamono bi lartu yaa ci dudul sikk su ma isaa lam yooyu judu topp ndem topp ndeem fekkee fu leen fa fal yardu dina koy delloo li waaris yi moo ñel aji doon seen bilaa di ci lu dul deng-deng su ma lam yu judu topp ndem topp ndeem fekkee fu leen fa te sadaxaa mu sarax waxanum ci ñoom bi xaa ci moom kazaaneke ni xakkaana la ko nettalee man ka nga xam ne xaqaxaa dëggal na xam-xam mu ne eh, delloo tooñaa ngi nee ñaari xaaj la mooy tooñ nit ki ci alal ak tooñ nit ki ci daram tegoon dara ci ci daram ci loo xam ne lu ñaaw nebi ci njëkk nag muy tooñ nit ki ci alalam bu fekkee dafa gaaroon tuub bi euh, dafa gaaroon jaam bi muy tuub di dellu ci boromam na mu ko war a defee mooy day dellu day dem ca ka mu amee loon alal jooje rek delloo ko alalam bu fekkee ne kooko nekku fa nag mu xool ña ko war a dond mu jox leen alal ca xamal leen ne seen alal yi kooku kooku ñu waroon a dond la moo ko amee loon bu kooku nekkul nag mu saraxeel ko lu tol ne lam ko amee loon yéena ko yoolu tuyaaba ji di di yaakaar ci boromam ne suñ borom dana ko jéggal mu ne nii daal ñi saytu xam-xam bu baax a baax noonu la ñett leppañ bu njëkk boobu wa yastaxilu dana dagan lu kull kulla xirdin bépp der akala boobu lekk na bi xibatin ci jëw aw xasmin wala jiiñ aw sadmin wala wala ŋàññi e, jala feeñ na in kaada nem nekk na xaajaran di aji teew wa ama in faqit na lem ñàkkeef na ko fal yuk siran nay nay baril maanaam rikk nay baril xayran aw yiw laxaalawoo ndaxte moom yejji dana am say an dara dana fekk say an dara yodd yi dana bijji xàq kullihim àq képp ci ñoom mustaxfiran muy aji jéggal ko bihi ci moom wala yarju tamuy yaakaar xafara bihi ñëggul boromam mu ne it nim ni mu ñëwee ci addis ba rek ne ko yonente waxee ne képp koo xam ne e, ameeloon na mbokkum jullitam dara ci àq e, faletaxallal minhu l yawma na fexe ba fecc ku ci fii fii ñu nekk ci àdduna loolu nag eh, ci wàllu der mooy ñaareelu poñ bi mu ne képp koo xam ne nit ki eh, tooñoon nga ko ci daram moo xam da nga koo jëwoon wala da nga ko da koo ŋàññoon wala da koo jiiñoon yooyu bu fekkee dag koo defoon bu dee kim ko defoon mi ngi dund day dem ca kam ko defoon rek daat koy jéggulu xamal ko lam ko defoon mu jéggal ko mu jeex eh, bu fekkee nag kooku nekk fi nag muy def ay yiw yu bari yoo xam ne da koy yéene tuyaaba ya di yaakaare ca loolu ne mën na mën na mën na ko caa fay ba wis ko day jégalu borom moom it te yaakaar ne suñ borom dana ko jéggal wa war na mukallaf xibsu wattoom alisaan làmmiñ wa min faxsaayi ci bum ci ñaawteef yi wa min qabihil xawli ak luñ bonal ci ay wax wal miraay ak werante mu ne mukallaf mu nekk it war na téye làmmiñam ci ñaawteef bu man di doon war nay téye làmmiñam ci wax ju bon war nay téye làmmiñam ci werante daal di leeral nag loolu mooy lan wax ju bon na xaqiqatul xawli dëgg-dëgg wax wax alxabihi ca di bon kula maa mooy yëpp wax joo xam ne tëkkoonu da nga nekk yow saa xayaa di boroomu kersaw mi ni ci moom faxala maa xamal li ma la wax wa jawasoo ñoom borom xam-xam ya daganal lañ nag tasrianhu ak leeralam indal ba liit fas aji gàtt xel ja in kaana nem nekk na laayef xamul du dégg talwixaan ak junj yu fil goog dana ko jariñ mu ne dëgg-dëgg wax ju bon it mooy bépp wax boo xam ne rek da nga ko kersawoo wax ci yenn jataay bu toogoon ak sa sëriñ wala sa waajur am nga kersa pour yëkkati ko fa loolu xaymaal ne mooy takk-takk bi gën a leer ci ne mooy wax ju bon daal ne nag bépp loolu mooy wax mooy wax ju bon eh, wax ju bon jooju nag la la wax ne la war nga koy war nga koy teet di ko moytu bu baax a baax waaye nag bu fekkee dangay ngay jàngale wala nga war koo leeral leeral liin woo xam ne ki ngay waxal xel mi daa xaw a eh, suufee tuuti nga xam ne boo jaarul ci digg ba du ko du dégg boobaa nag nee na borom xam-xam yi daganal nañ nga jaar ci digg ba ndax jaar ci digg ba kat boobaa dana ko jariñ moo tax xaqiqatul miraay yi dëgg-dëgg werante xëy na man parce que nga xam ne dara xam na juhoodu xaqin mooy weddi dëgg baxdamaa ginnaaw ba nga xam ne xad zahara feeñ na wa def ak jañe bi baat liñ ci neena baasin ak ay li kur yi ngir sib xab di jaay suufeek daraja xinda naas fa nit ña wa war na wa min ihaanatin ak doyo dal aw intihaarin wala gëdd li muslim ñeel ab jullit aw sabbihi wala ŋàññi ko bil xaari ci gàcc wa misli si kem yi taxwiifa ak ragalloo taxwiifa ak loo fii xayri xaqi sarxin ci lul aqi sarian lul aqi yoon lislaam laa tax ifaabul jeng lakinnahu waaye moom nag fil xaddi ci gëtañ wa taxsiiri ak jajji mu jawa sun lu ñu danga nan la inda foofa lil xiiri fas ku yi tànneef ya mu ne mu ñëwaat ndax dane woon e, mukallaf mu nekk war nay téye làmmiñam waxoon ci wax ju bon daal di ñëwaat ci ñaaral bi ne mukallaf it war nay téye làmmiñam ci werante ne werante nag mooy e, dëgg gu leer nañ nga bëgg koo weddi bëgg cee teg sa tànk ngir jàpp ne e, daal bëgg koo bëgg koo loolu bu feeñee wala ko ko bëgg a feeñal daal e, bu amee dëgg ci yow day suufeel sa daraja wala yu ni mel loolu mu kàllaf mu nekk war na koo moytu te xam ne baaxut ba tey bokk na li nga xam ne ko nekk war na koo moytu it mooy di doyadal sa mbokkum jullit wala nga koy gëdd wala nga koy ŋàññi ci loo xam ne mën na koo jural gàcc wala lépp loo xam ne rek day loo nit waru ko def mbokkum jullitam eh, ci lu dul sariya def lu ko maanaam moom mu def luy tax sariya daal di daal def lu loolu moo tax mu ne ci lu mel ne ab jullit bu defoon dara sariya war koo teg ay daan ñu war koo gë gëtañ wala ab jullit boo xam ne dafa def loo xam ne àggul ci gëtañ waaye des ko war a yar yar bu boo xam ne imaam moo cay moo cay am ab taxawaay bu ràññeeku loolu nag borom xam-xam yi nga xam ne seen morom mi borom yi xam-xam yi bu ñu leen doon melal ci ay xar ñoom ay kuy lañ ca ñoom noonu la ñu nettalee masala moomu nee na waxaa kitaay nekk nii it al yaminu giñ bi talaaxi ci fase mu xaramu lu araamal la waaye nag wala araamal gi nag bi tifaax mu nekk ci dëppoo mu ne naka it eh, nit ki di baaxoo di giñ naan naa fase sama soxna sàngam loolu moom jullit bu nekk na koy moytu lu ñu araamal la donte nag araamal gi nee na ak dëppoo amu amu ci ci diggante borom xam-xam yi li xabari nax yi ngir xibaaru tere ga xanil yamin ni ci giñ bi leen ci goreel wa talaaxi akuk fase fi tab yi ni ci beral wa man ixtaada ku baaxoo na bihaa ci moom xanaa tarti bi ci toftalo fii na xoon na comme yëkkoon dana nekk sa taadi sa bi di borom yar is ngir lay sa yaxle bu den muy biñ déet giñ bi talaaxi ci lu mel ne ko fase wala xit ak goreel xaadatan di ko baaxoo si wala fu saaxi lul waay jàngee lul kàccoori wa war na mukallafit xifsuhu ak wattoom basaru ab gisam min al xaraam yi ci lu araam laa yanduran lik rikk bu mu xool ma lépp loo xam ne lam ya gis daganut an yandura mu xool ko ka nazari naka xool bi nasaratin li mu suñeel ab jullit bi nasaratin ci aw xoolin woo xam ne toosi yi boobu dana ko lor laa waxuma lil faasiqin ñeel aji jàng aw mujrim aw mujrimi wala aji tooñ bal li fi nekkee waajibun aji war la alayhi ci moom eh, fii maa suriha ca la ñu yoonal hijraanu ak tongoom nasihatan ngir ak laabire li yarjaa ngir mu dellu ci tuub mu ne ba tey Euh, euh, loolu kon mun a jullit bi rek war na koo moytoo di ko def mooy di baaxoo di giñ naan danaa fase sama soxna sàngam wala dinaa goreel sama jaam sàngam loolu nit ku ko baaxoo di ko def sax warees na ko yóbbu ci imaam mu yar la ko ndax loolu mu ne kàccoor yi rek ñoo koy ñoo koy faral di baaxoo daane nag mu kàllaf mu nekk it war naa wattu ab gisam bañ ciy xool lu araam lépp loo xam ne daganut ci sariya mu xool ko mu bañ ko ci xool daa ci joxe ay exemple yu leer daan lu mel ne muy xool ab jullit xoolin woo xam ne xam nga ne xoolin wi da koy da koy lor moo xam da koy xool xoolinu tëkku wala yu mel noonu wala di ko minimiser ak yu loolu nag bu fekkee nag ki ñu koy def moom ab kàccoor la wala mu nekk ab tooñkat boo xam ne koo ne daal ràññeeku na ci ay bàkkaar wala iyaazu billah kooku nag di ko xool xoolin yooyu nga xam ne day tax mu deltu ginnaaw ci loolu muy def loolu moom lu sariya yoonal la eh, ndax loolu ak laabire la rek ngir mu mën a dellu siwaat wa mënaxoo tare nañ an nasara xool li nisaa yi ñeel jigéen ñi al ajnabiyaati ña di ay jàmbur wakal xas naa ak nag waaye rafete min kulli suuratin ci bépp portale mooy photo xalal di saasi ci bànneex ci bànneexu ka am radir rijaali naka eh, tuyangu góor ñi faxtar wattul haadi lii mu ne eh, naka noonu borom xam-xam yi tare nañ eh, nit ki di xool soxna soo xam ne jàmbur la ci moom maanaam bu ñu maase woon Euh, takkante mën naa am seen diggante ak araam mu seen diggante euh, ku mel noonu ngay xool euh, ay photo moo xam da ngay xool ay ay ay contact am ci réseaux sociaux yi wala yu ni mel loolu loolu loolu ba tey neen borom xam-xam yi tere nañ ko ci bépp photo bépp portal rek boo xam ne ma des na ca jaare ngir bànneexu naka noonu jigéen ñi it nañ koy moytoo def góor ñi nga xam ne mën naa am am nañ wala góor it di ko def waxam di ko def moromu góoram bu fekkee ne dafa nekk ko am feebaru bu fekkee ne bu ko xoolee dana ci am ak euh, ak yëg-yëg gum ca yëg wa minhu bokk na ci nasaratun ak xoolin ala ala ala ihtiqaarin ci xeebeel ka daanaka noonu li tax wi fi ngir ragaloo am intihaari wala gëdd wayet manun waaw mu ne naka noonu it araam na ci ab jullit muy xool moroomu jullitam xool yi nu xeebil waaw wala xool yi nu xa xool yi nu ragalloo wala xool yi nu gëdd ak yu ni mel wayet manun dana warlu nag ala aayinu aji gëtu ji maaxat xalakaa lépp loo xam ne alak na ko bexey nii ci ay bëtam kamaaxat xakaanaka mu ko nettali araisu kilifa ga mu ne naka noonu ba tey ki nga xam ne yàlla da koo nattoo ay bëtam daa di daa di aay nga xam ne lu mu xool rek mën naa yàq kooku kat bu demee ba siiw ci loolu des na ko tëj ci këram comme ni ko kilifa ga nettalee mu yàq dar yi weesu jën def na tëj almihyaanu borom bëti meewaan yëpp mooy eh, lii weesu woon léegi xaysu taxaraaf mu fi siiwee def na ko tëj nag bi durri bi fu mu fi siwee bi durri ci lor def na ko tëj fii man si lii ci kanam xibatul alxabara xibaar ba mu ne naka noonu ki nga xam ne siiwee ne ne moom bëtam yi kat lu mu xool rek mën naa mën naa ay bu demee ba siiw ji nag ay loroma tax des koy tëj ci këram muy bañ a génnati moo gën muy continuer di lor ci ay bëtam wa war na mu kàllaf xifsuhu eh, ak wattoom aljawaarixa cëriya mooy cëri juróom-ñaari albatnu te moo di biir lisaan ak làmmiñ farjun pay rijlaani ñaari tànk wa aynaani ak ñaari bët yeddaani ñaari loxo saabihuha juróom-ñaareel ba al utnaani ñaari nopp man raxaa ku sàmmuna laxaa ñeel ko xan maasi ci mooy xaas da laq xaas da laq na xas dan ak jublu aj maxan boole seen mu ne mu kàllaf bu nekk war naa téye juróom-ñaari cëram yi bañ ci mooy yàlla lu mel ne biiram mu koy téye bañ ci dugal lu araam làmmiñam mu koy téye bañ ci wax lu araam payam mu koy téye ba mu bañ laal fu ñaari tànkam mu koy téye bañ cee dox jëm fu araam ñaari bët mu koy téye bañ cee xool lu araam yeddaani ñaari loxoom mu koy téye bañ cee laal lu araam guyente wax al yaddu zinaha al bats ni mu ko waxee ci cër yëpp loxo moom laalam ci mooy mooy njaalo fa moom ñaari noppam it bañ koy téye di ci diglu lu araam ba ci yi nga xam ne dafa gën a euh, suufee euh, ay ay kàddu yu araamut ci moom euh, ak ay xeeti misik ak yu ni mel mais su wax noonu yooyu Euh, it mukallaf mu nekk war na koy moytu ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe man man qaada ala xaynatin yastamiu biha zaballaahu aanak fi usna yowmal qiyaama koo xam ne dafa toog ci aw di ca diglu lu araam euh, diirub lim ko digal lim ko diglu da dees na ko soppi beteex di ko sot sotti ci ay noppam wala yowmal qiyaama alhiyaazu billah ndax nee na euh, koo xam ne nag sàmmonte nag juróom-ñaari cëram yooyu kooku nag jëmmi ak jub ci boppam làq na léppam is ngir ku loxo duñ bépp cë bépp cër saax yow sama àndandoo xaabalat jàkkaarloo nag min ci moom baaban buntu mina niiraan ci buntu sawara ya fii maa sabat ci la sax na man képp koo xam ne hafisaha watt na ko moom cëri juróom-ñaar yi eh, laa yadxul leen mi tàbbi baaban buntu minal bibaani ca buntu ya fii maa ci la nga xam ne ñun xol def na ko doxal wakul xaduñ bépp cër it xar xasayta mooy nga bihaa ci moom abadan faaw tadxul dana tàbbi bihaa ci moom ànd bihaa ànd ak moom baabaha buntam xaddin ëllëg mu ne kon mu kàllaf mu nekk Euh, waaw mu ne cër bu nekk ci cëri juróom-ñaar yooyu jàkkaarloon ak benn benn ci juróom-ñaari bunti sawara yi cër boo ci bu ci mooy rek suñ borom mën na koo tàbbal ci buntu ba mu euh, képp koo xam ne nag wattu na cëri juróom-ñaaram yooyu ba muyu ci muyu ci benn euh, ëllëg cër cër ba buntu ba mu jàkkaarlool suñ borom dana ko ci musal bépp cër cër boo xam ne it mooy nga ca ëllëg mun mënta ñàkk ñu dugal ko ci bunt ba nga xam ne moom la jàkkaarloo ci bunti sawara yooyu wal xiyaatu billah wa war na mu kàllaf it an yuhiba muy bëgg lil lil lil ilaahi ngir buur ba sil anaami kay borom mindee fee sax san jëmm boo yëpp xida tam yi bañ la xoo ñeel ko laa bum di bëgg wala muy bañ lil xutaami ngir poñtam àdduna mu ne mu kàllaf mu nekk it war na di bëgg nit ki ngir jëm yàlla eh, di bañ nit ki it ngir jëm yàlla man di bëgg ci yàlla di bañ ci yàlla wa ahbi wa ahbibi na nga sopp almumin aji gëm ji lil imaani ngir li mu gëm wala tubi xida ta ngay bañ alkaafir aji weddi ji mooy yéefar bi li kufraan ngir li mu weddi wala ata doonte dikke na a jëm jëm ci jëm ci yow zaaka boobu la jullit bil jinaaya ànd ak tooñaange wada ak bi la yéefar bil maali ànd ak alal sil kifaaya borom doyal mu ne eh, mu kàllaf mu nekk war nay bëgg ab jullit ngir limu mu gëm yàlla di bañ yéefar ngir kéefar gi nekk ci moom waaye bañ di bañ nit ki mën naa am ngir ngir ngir ngir ngir personnalité am jëfam daal day tax nga bëgg ko jëfam day tax nga bañ ko ndax jëf ji gën a ñaaw muy muy muy muy amalu luut sax mm, gis nga sayidna luut tam leen waxoon wa inni li amalikum min alqaalin eh, man kat ngir seen jëf tax na bokk naa ci ñi leen bañ waaye personnalité nit ki nag moom en tant que doomu aadama eh, waree sut di ko def yooyu eh, mu ne doonte jullit bi andil na la ay tooñaange dee ko bëgg ngir leen boole muy lislaam di iman yéefar bi doonte andil na la yéefar andil na la adduna li ci biiram it dee ko bañ ci kéefaram googu ngir ngir ngir ngir li mu yàlla wa war na mu kàllaf an yokkoonu mu nekk amiran aji digale bi rusdu ci jub wa naahiyan aji tare xandid na wali safaanu jub li nu saxaatini ngir ak laabire laakin na waaye moom nag digale ak tare la ko ñeel ko salaasatu surut ñetti sart zakaraha tudd na ko sooy xonaa sunu sëriñ ba almuhit kat aji pekk xam-xam fi saxi ca saraba xanit jublu naa fil jawaasi ci jaadu ruujoo bi ak ak waral fexe ko jàppale xaddaha limba ala tartibi ci toftale ay mu nekk aaliman di aji xam bil munkari ca pàkk ba wala sa mufdiyan te deet pàkk boobu di loolu moo tare den muy aji bijji di sarin jëm ci ay akbar wu gën a mage waan yokkoon mu nekk xaadirin di aji attan sul amri borom digal la digal la xala isaalati ci dañal bi xëyri na kuréel ci lu wedd waaw wasaratoo ñoom borom xam-xam yi sart nañ ci is na imaam imaam fii ci moom maanaam daal di ànd koog maanu bi daa tam wii ci wax yi la am nañu waxeef nag ne nag ne inna say ni naka ñaar lam yokkoon nekkuñu sart leen di ñaari sart fi am ci mbir ma daax yi bàyyil a tax mi naa wéyee njort kon dafa mel foofu warees na faa mën a taxawee tey mu ne euh, li muy tëjee nag mu ne mooy euh, al amru bil maaruf wa nahi an munkar mu kàllaf mu nekk war nay war nay digale lu baax war nay tere lu bon ndax lool la suñ borom melale jullit ñi kuntum xayra ummatin euh, uxrijat linnaas ta'muruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar waaye neen nag digale lu baax ak tere ab safa tere digale lu baax ak tere ab safaanam muy muy muy lu bon Euh, mukallaf mu nekk mu ne nit ki war na di ko def waaye nag am na ñett sart yoo xam ne tudd nañ ko ci euh, alminah lenn ci saraay axdari yi euh, daf ko ñetti xaaj mu ne suñu sëriñ ba tudd na ki daf ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ki nga xam ne mooy digale wala muy tere war na xam jëmmi munkar mooy lan xaajum ñaareel ba mooy war na xam ne munkar bii muy terekat du la yóbbu ci lu gën a ba lu lu lu lu gën a yees lu gën a yees ndax di tare lii far yóbbu la ci lu ko gën a yees loolu lañ koy tare euh, bu doon ñaari yu bon la exemple lu bon a bon lañuy bàyyi daal di jàpp ci lii xaw a bon waaye di di di di tare nit ki lu lu xaw a bon far yóbbu ko ci lu bon a bon loolu it des koy tare sartu ñetteel ba nag mooy sartu waajib mooy li tax mu war mu war koo mu war koo def euh, mu ne euh, moom may digal wala muy tare war naa nekk koo xam ne Eh, digaleem ak tere dana am efficacité bu cee nekk dana mën a dajal loolee nga xam ne dana koy def waaye koo xam ne mën naa am bu digalee kenn du ko def bu taree bu taree kenn du bàyyi loolu day mujj sax baatub digale ak baatub tere dadul ci nit ñi moo tax mm, mu ne it borom xam-xam yi it sart nañ ci ki war a digale ak ki war a tere bu dee du imaam mun naa am autorisation imaam ca moom na nekk nit ku maanu koo xam ne la muy digale ak ak la muy tere bu ak lënt di ca am ndax bu digalee lu leerut wala mu tare lu leerut ak ngir ak ñàkk xamam loolu mën na andi ay musiba yu gën a mag am na nag ñu ne euh, autorisation imam bi ak moom mi diggale wala muy tare dafa war a nekk ku maanu mu ne borom xam-xam yenn yi nee nañ loolu loolu du ci sart du ci sart waaw ah, waaye nag euh, la cay sart yi moom mun kar mun kar ba daal na nekk loo xam ne lu fees lay doon lu ñu mën a teg baaraam lay doon xam naa beneen darsu bii di ñëwaat danañ ci ñëwaat danañ ci ñëwaat gën ko leeral euh, àggale ko doog a ñëw yaa rabbi ijaalil muridina maa fi hisnikal azina wa samlaj ma kon ci beneen darsu beneen yoon ñu ànda ñu àndaat ak yéen ci beneen darsu ci seen programme bii di daarul maarif al islamiya di sant waa daayiratul muqaddamatul xidma ñëpp ak waa daarul maarif ñëpp ci njiital suñu kilifa gi sëriñ Alhaaj Mbàkke Jaxate xafisahullah wa raa di ñaanal suñu kilifa gu mag giit sëriñ Mouhamadou Muntaxa ak mboolem ay jëwrinam suñu borom yàggal leen ci suñu kanam ci barkeb sëriñ Tuubaa baax na jërëjëf ba beneen yoon waj'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi